أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ام ميديا جروب نور الدارين ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu duggati muy weeru seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngën ji mbindéef di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp luñ ko jaamu rek mu nungul ñu ko te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu aq ñuy ziyaare mbokk yépp nekk di ci jiital kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko jàll ci mboole mbokk yépp waaw bu ko defee kon tey xam na ngir xat-xati jamono ji moom fatwa bi tey dañ ci daal di jéem a tàbbi rek di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ñu ci dimbali bu baax a baax bi jëy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare it suñu kilifa googu Cheikh Abdourahman Mbacké daarul mooti di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko dolli ay leer te taasu ci barkeem mu doonoon jàmbaari lislaam jàmbaari xam-xam jàmbaari loolu wax dëgg yàlla liggéeyal islaam loo xam ne lii jullit bu mën a doon ci àdduna rek ak foo mën a nekk rek boo ko yëgee boo ko yëgut sëñ abdourahman jariñ na la kon loolu mu doon liggéey doon ko taxawee islaam yàlla na ko yàlla nangu te njaboot gi mu fi bàyyi ak ñun ñu fi bàyyi jullit yi ñu fi bàyyi yépp yàlla doolu ñu defal tawfiix luñ ci mën a taxaw rek ci wàllu googu ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu xam-xam bi ñu gën cee taxaw mu nekk suñu royukaay ñu roy ko ko ndax moom jëm la joo xam ne ji comme ni ko mbokk yi waxe woon rek moom nekk nit ak lislaam dongu laan jëm lislaam dong dong moo ko yitte leen ay guddeem ak ak bëccëgam yépp noonu la ko taxawoon ngir jëriñ jullit ñi te loolu dafa am solo ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne boo fexeyee ba kenn nit jub te jubam googu maanaam yow ci yow la ko jaare maanaam nga fexe daal ba kenn nit dong jub la la ci yàlla fay mooy gën buñ la joxoon adduna gépp ak li ci biiram ne la yaa ko moom te defe na Cheikh Abdourahman moom moom li mu gindi ci ay doomu aadama li mu dimbali ci ay doomu aadama neexuta xayma lu bare bare bare lu am am solo la kon yàlla na ko yàlla nungul te defal ko yool boobu defal ko ko ay leer bi jaay sina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu mbokk moom itam muy mbokkam soxna soosu muy soxna ci bu njaay sëriñ abdul ahad njaay moom mu doon wax moom itam yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko xaare ko aljana bi jaay sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam ñu dégg ko siyaar di ko massawu xam ne métti na loolu waaye nag yàlla moom dina def lu métti loolu waaye du jummuk yàlla moom lu mu def rek noonu la te it doomu aadama moom li ma war dund ci ko suuf moom saa bu jeexee ak fu mu mën a jaare ba dem day faatu kon dee day jot rek nit ki doog a dee waaye feeg dee googu jotul du du dee mukk te it nit ki ku mu doon ci nun yàlla bindal na la sabab ba nga xam ne bii maanaam ca ngay jaare maanaam war a dem barsax kon na ko yàlla yërëm te jégal ko xaare ko aljanna moom jullit ñoo ko fekk ak ko fay fekkaat yépp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon laaj yi tey bi ci jëkk rek mooy laaj boobu fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tabalan te ñu xawoon am ay jafe-jafe appareil yooyu ba daanaka moo xawoon ñu rëcc ñu koy tuub di ko jégalu baax Mbacké mooy bayit nga xam ne gi Xaadimu Rasul la ko wax ne da cee wax ne kullu muridin bi yaluusu fal yu dim tilawatan li xayri zikrin xadru sim Seexul Xadim dane bépp taalibe boo xam ne bii danga aju ci man na nga saxal jàng alquranul karim moomu moom loolu la wax ci bayit bi bépp taalibe boo xam ne bii daal moom danga ne taalibe Xaadimu Rasul la Xaadimu Rasul mooy sabab sëriñ sëriñ Tuubaa nee na na nga saxal jàng alquranul karim kon gis nga bu ñu xool foofu ab seetlu sax nga xam ne moom dana bépp taalibe rek kon ku mu doon ci ñun rek da nga war a góorgóorlu jéem a xam ba mën a jàng alxuraan waaye itam ku njàng ma weesu itam itam nga jéem caa góorgóorlu góorgóorlu mënoo jàng war nga góorgóorlu ci di fonk alxuraanul karim waaye itam fonk ñi nga xam ne ñi dañuy jàng alxuraanul karim ndax moom taalibe yépp la wax kon ki mën a jàng daa war a saxal di jàng alxuraan waaye ki nga xam ne ki mënta jàngit taxañ na jàng rëcc na ko daa war a góorgóorlu ci fonk alxuraan su ko mënee di fàggu di ko jox ñi mën a jàng alxuraan waaye tamit bu mënee di am xéwal ak di ko jàppale di ko dimbali di ko jox ñi nga xam ne ñooy jàng alxuraan yi maanaam mu di ko def di ca yéene njàng moom mu waroon a jàng jéem sëñ bee ko diglee te mënu koo jàng mu cee yéene loolu su boobaa it yàlla da ko cee defal yool ba dina ko am kom bu ko doon jàng kon bayit googu dafa am solo lool nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne wa nazzalna alayka alkitaaba tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimina yàlla dafa ne man maa wàcce alxuraanul karim muy téere bu màgg mu rëy boobu waaye yàlla ba moom bi mu ko wàcce dana ñeent yi rek tax ma wàcce ko mooy tibiyaana li kulli shay'in mooy leeral lépp maanaam alxuraan leeral na lépp maanaam bàyyiwu dara wa hudan waaye tamit alxuraan na aw yoon la wu jub woo xam ne bii ku ci aw rek maanaam ku ci jàpp di ko jàng di ko settantal dina la ginti teg la ci nga xam li nga war a def waaye itam xam li nga war a bàyyi wa rahmatan waaye dana alxuraan itam yàlla dëxañ na ci denc na ci yërmaande joo xam ne jii maanaam ci alxuraan rek la nekk yërmaande ju rëy joo xam ne jii képp ku ko fonk rek di ko jàng yërmaande jooju yàlla dina la ko defal muy ñetti tom waaye ñeenteel ba mu ne wa bushra li muslimina te ne it alxuraan bi ma koy wàcce itam dafa nekk ak mbégte ñeen mboolem jullit yëpp gis nga ñeenti tomb yi yàlla ne moo tax rek ma wàcce alxuraan muy leeral lu mu mën a doon muy alxuraan bàyyiwul dara waaye itam lu di ak njub rek ci benn alxuraan lu di njub alxuraan bàyyiwu ca dara waaye itam mu nekk yërmande lépp lu yërmande mi ngi ci biir alxuraanul karim waaye tamit nekk mbégte ñeel jullit ñi lépp loo xam ne li mbégteem jullit la rek bu dee àdduna ak àllaaxira lépp yàlla ne maa ngi ko def ci biir alquran daa di waxaan moom yàlla subhaanahu wa taala daa di nekk wa quraanan faraqnaahu li taqra'u ala nnaasi ala mukrin wa nazzalnaahu tanzilan bayit gi sëñ bi wax te mooy sëriñ Tuubaa dafa wax ne taalibe bu mën a doon na ngay saxal di jàng alquran gis nga ko mooy ñëw ni ne yàlla nee na alxuraan ji dama ko taqale ngir nga mën koo jàng ci ak sax maanaam kon gis nga na saxal jàng alxuraan jee sëñ bi waxee day daal di dëppook aay bi nga xam ne moom la yàlla wax maanaam li taqra'uhu ala naasi ala mukfin ngir yow Muhammad nga di ko mën a jàng di ko jàngal ci nit ñi den ko njàngal njàng moo xam ne mu saxla waaye tamit ba kër àddunay tukki jullit bu mu war a doon bu mu mën a doon boo ñëwee ci àdduna danga war a góorgóorlu mën a jàng alxuraan waaye tamit saxal di ko jàng ba kër nga fi jógee. bu ñuy xoolaat itam kilifa dañuy wax lenn ci njariñu jàng alxuraan mu ne amma fawaidul xiraati faqad raxaba fiha xawlu baadi man naqat fa man araada al xurba min mawlaahu fal yaqra il quraan laa yansahu mag dafa wax ne njariñi jàng alxuraan daal am na kilifa goo xam ne gi fonk na ko lool yittewoo na ko lool xemmel lool na ko ndax lam ci wax mooy képp koo xam ne kii daal bëgg ngaa jege sa borom rek maanaam na nga saxoo di jàng alxuraan fa man araada al xurba min mawlaahu fal yaqra il quraan laa yansahu képp koo xam ne kii bëgg a jege sa borom rek na ngay saxal di jàng alxuraan te bul ko bàyyi laayan saaju foo jooju dañ koy firee ci masaaliku jinaan muy laayaturu ko maanaam bu mu bàyyi njàng moom moo xam ne mii moom lay jàng sëriñ bi daal di waxaat comme bay bu dëppoog kullu murid jee muridin jee mu ne adim tilawatan li dhalika alkitab walaw thalathatan min al ahzabi fi kulli yawmin duna hijratin lahu duna hijratin kama talabatul ilmi lahu zawuntima sëriñ bi ne na nga saxal di jàng alxuraan bés bu mu mën a doon maanaam bu benn bés jàll te jàngoo alxuraan lu mu néew néew na nga fexe ba saa su bés ñëwee nga jàng ñetti isibi alxuraan lu mu néew néew bu ko defee euh, dafay waxaat ci euh, beneen téere muy Muhammad Suleymaan yaakaar naa mu ne fa huwa sabilu lazi maa fiihi min iwajin liman yasiru ila mootu raxibaat len alxuraan daal mooy yoon yu nga xam ne wii amul benn dëng-dëng nga xam ne ku ci aw rek boo nammee dem ci yàlla maanaam boo jàppee alxuraan di ko jàng di ko euh, settantal di jëfandikoo li lay digal di bàyyi li lay tere maanaam dina la ombat ba yóbbu la ca yàlla waaye tam mu wax ne waman yarum wasalatan lillahi munsarifan anhu faqad faatahu hablul wisalat waaye nee na tam képp koo xam ne ki da nga bëgg a àgg ci yàlla bàyyi fi alquran maanaam na nga xam ne buum gi nga xam ne gi moo lay jokkale ngeen nga mën a àgg ci yàlla buum googee maanaam maanaam raw na la maanaam dagg na maanaam amoo ko daal xam naa li ma ci indi ni ab tënk bu ndaw a ndaw la rek ci li tax sëriñ bi di ñu jàngaloo alxuraan kon yàlla nañ ci yàlla gën a jàppale ñu gën cee góorgóorlu ba lu mu néew ne daal suba bu mu xëyee rek am lu ñu jàng ci alxuraanul karim te yàlla rek tax ndax waxuma njëriñ yi ci nekk rek lu ci nekk lépp ci njëriñ jàng alxuraan waaye doon jéem ndigal la rek ndigalal dong moom dana war a jaral maanaam suba bu ñu xëyee ak lu mu xat-xat lu mu néew ne rek ñu fexe ya jàng ci alxuraan dara ndax ak jéem digal la rek rawatina nag njariñ yi nga xam ne yii moo ci nekk ndax lam wax rek la tafalu shay'an bi ghayril idni fal idnu shatun fi xubuli shani danoon bu leen def dara ci lu dul ndigal ndax ndigal kat charte la ci boo defee loola yàlla nu ko kon bu ndigal taxawee muy sëñ bi digal na leen jàng alxuraan léegi ñun bu ñu defee ndigal rek ñun wàcc nañu kon yàlla dana nangu ci barkeeb sëriñ boobu nga xam ne bi moo nu ko digal ngir nanu def digal la kon yal nañu yàlla doole defal tawfeex ba nu gën a góorgóorlu ci alxuraan ji bu baax a baax bi jëy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen laaj bi ci topp sëriñ Saalix Njaay jëwriñi alxuraanul karim moo ko fi tàbbal yal nañu yàlla doole jàppale wax dëgg yàlla mu farlu ci njàngam alxuraan mi lool bëgg lu baax lool moom dafay laaj ne imam bi nga xam ne bii daa jiite mbooloo ba pare waaye bi mu jullee ba julli ga pare ba mu sëlmal ba dellu gis ni daal ay yéreem sobe dajaane lan mooy àtteeg julli googu moom imam bi ak julleem ak julleem mbooloo ma mu àndalan dañ ko naan tilka salaatu saxihatun wala tuaadu ida wajada al insaanu fi thiyaabihi najasatan ba'da salaati laa yu'iduha googu julli ñi jàngale fiqh fa dañ ne julli ga wér na ne ne nit ki saa su jullee ba pare ba mu sëlmal ba génn ci julli ga daal di gis na yéreem yi maanaam am na sobe daal julli googu wér na waaye du ko baamu ndax ne ne far rasulu sallallahu alayhi wa sallam fi baadi salawaatihi nabbahahu jibrilu alayhi salaam xaala inna fi naalayka xasiran fa xalaahuma walam yoxit awala salaati ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na julli fekk summi wut ay dàllam te fekk dàll yi sobe da cee nekk bi dàll yi amee sobe jibril wax sayyidina muhammad ne ko sa dàll yi daa am sobe mu daal di summi dàll ya fekk am na julli yum julli woon ba pare waaye julli yoo ne ne Seydina Muhammad baamu ko maanaam julli yam julli woon bi mu solee dàll yi te dàll yi daa am sobe bi ko ko Jibril waxee da ko summi waaye baamuwut julli yi nga xam ne yii moom la julli waaye dafa continuer di julliwaat yi yeneen julli kon ne ne fa dalla dhalika ala annahu la tu'adu salaatu ida sallaha wa huwa jahilun aw naasiyun walam ya'lam illa baadal faraax kon ne ne loolu ko dañ ci tegtaloo ne ku julli waa julli ba pare seetlu ci sa yére ne sobee nga ca euh, wala donte xaman nga ko sax waaye bi ngay dugg ci julli gi fàtten nga ne sa yére sax dafa am sobe nga julli ba pare nee ne soo pare doo ko baamu waaw kon daal googu julli wér na te deesu ko baamu kon jëm foofu la Seydina Muhammad jaar julli na julli gu mel noonu te baamu ko daal kon dañ ciy tegtalu ne kon julli googu baax na kenn du ko baamu beneen laaj bi ci topp jëwriñ Muudu Ngom moo koy laaj muy wàllu daal lu aju ci julli la muy romb ci kanam kuy julli waaw romb ci kanam kuy julli dañuy ciy jëkk a wax lan mooy atte bi xokkumul muruur amaamal musalli bu ñuy xool ne nit ki buy julli kenn di romb ci kanamam romb googu lan moo di atte mooy dañ naan laa yajuuzu maanaam nit bu dee julli bés ko mënee moytu maanaam daganut kenn di jaar ci kanamam di romb di jàll ndax na ne far rasulu sallallahu alayhi wa sallam xazzara minhu wa axbara annahu an yaqifa arbaina xayran lahu min an yamurra bayna yaday musalli qariban minhu fi thalathati azruin fa aqalla seydina muhammad dafa noo moytu lool lool nit ki bu dee julli nuy jaar ci kanam loolu yonent bi da ko doon moytulu bay wax ne nit ki daal bu gisee nit di julli maanaam bu mu jaar ci kanamam ndax ne ne maanaam mu taxaw lu mat ñeen fukk daal moo gën muy jaar ci kanam ko nga xam ne kii dafay julli ñeen fukk yooyu nag mu taxaw ñeen fukk yooyu nag maanaam waxut ñeen fukki minute la wala ñeen fukki seconde la wala ñeen fukki waxtu la maanaam wutalu ko lu mu doon daal waaye daal dana doon na jar daal nit ki su naree jaar ci kanam kiy julli mu toxa taxaw ñeen fukk ñeen fukk yow nag xam naa ba léegi defe naa ñu ngi gëstu waaye gisaguñu fu ñu ne yonente bi ñeen fukki nangam la waxan ci wàllu waxtu woowu maanaam li mu war a taxaw waaye kon daal lan cay dégge mooy nit ki daal su ko mënee bu gisee ku julli maanaam bum jaar ci kanamam di jàll ci feneen kon ki julli ñu bara jañ bara bañ a jaar ci kanamam mooy gën daal su ko defee dañuy wax nag distance bi nga xam ne bii moo tax ñu naan maanaam deesut jaar ci kanam ku julli boobu dañ ko war a xam maanaam nekkul ne saa bu nit ki taxawee di julli rek maanaam waree su ta jaar ci kanam waaye dafa am ab distance bu mu tollool distance boobu mooy ni ñu ko natte mooy ñetti xasab ñetti xasab nag maanaam buñ ko doon natt fi mu ne nii maanaam day nekk mètre ak genn wàll kon nit ki bu ñuy bañ bu dee julli ñu bañ mu jaar ci ñu ñu bañ ko jaar ci kanamam mooy day nekk ne nit ki jege na jegeñe na ko maanaam ki ko nar a romb jegeñe na ko lu mat am meetar ak genn wàll su matee meetar ak genn wàll lañ koy bañ waaye su ko ëppee léegi dootuñu ko bañ kon daal bu dee ni distance bi lee itam loolu lay doon wala nit ki def ci kanamam ab saatir boo xam ne bii def maanaam am na distance boobu muy meetar la ak genn wàll toll ca nit ki nar a jaar ci digganteem ak saatir boobu ba tey loolu dañ koy bañ kon distance boobu yëpp dañ ko war a xam muy romb gi ñuy bañ mooy nga jege ko lu mat mètre ak genn wàll loolu la ñuy wax ne mooy distance ab bi ñuy tere nit ki romb ci kanam kuy julli foofu it li mu fi doon laaj ngir di laaj ndax maanaam dinañ ko may maanaam mu jiñ ko puus ko wala mu joxoñ ko ngir bañ mu jàll bu boobaa bu dee ni distance boobu dinañ ko ko may maanaam dafa noonu mu ko jege noonu muy meetar ak genn wàll su nit ki naree romb maanaam mën naa tàllal loxoom baare ko mu bañ a jàll maanaam puus ko wala mu joxoñ ko junj ko maanaam mu bañ a jaar ci kanamam looloo tax ñu ne bu dee ni meetar la ak genn wàll di nga ko mën a téye wala nga joxoñ ko wala nga tàllal sa loxo bu ko defee mu bañ a jàll waaye su ko ëppee maanaam mel na ci dootoo ko jot ak yooyu kon loolu moom dootuñu ko tere kon daal loolu daal mooy dayit nag lam cee waxaan muy ndax day dagg julli ga ngir baare ko ngir mu bañ a jàll su boobaa yi tamit du dagg julli ga su ko joxoñee wala mu baare ko da koy bàyyi rek mu jàll te mu continuer ak julleem nit ki nag dinañ ko may mu dagg ak julleem maanaam dafay war a dagg julleem sax maanaam ci bu ñetti mbir yi maanaam bu ci lenn jaaree ci moom ñett yi muy wax daal moom ku julli benn bu ci jaar ci sa kanam moom maanaam danga war a dagg julli ga muy al mar'atul baalixatu wal kalbul aswadu wal ximaaru ne ne nit ki bu dee julli bu jigéen goo xam ne gi gu majeur la maanaam bu jaari ci kanamam day dagg julli ga ndax julli ga dootut baax waaye tam ne ne xaj bu ñuul ku julli xaj bu ñuul jaar ci sa kanam bu boobaa it danga war a dagg julli gi waaye nee na tam kuy julli su mbaam rombee ci kanamam dafa war a dagg julli ga ñett yi daal lañ ne moom lu ci jaar ci sa kanam moom maanaam tolloog distance boobu la tollo mooy mètre ak genn wàll googu mu la waxan ne na bu boobaa da ngay dagg julli ga muy jigéen gu majeur ak xaj bu ñuul ak mbaam bi ñu laaj yonente bi nag ne ko waaw xaj bu ñuul moom lu tax mu bokk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dane xaj bu ñuul moom seytaane la xaj bu ñuul kon fu ñu ko gisee rek nan nu xam ne seytaane la nu musulu ci moom beneen laaj bi ci toppaat nag mooy soxna Cubba Njaay ñoo ngi dellu di ko ziyaare mbokkam moomu ñaan yàlla mañ xolam muñ te atte ko ci yërmandeem lam cey laaj mooy ndax soxnaam soosu ne ne dafa am doom ñu teg ci ay fan yu néew waa ji daal di sëriñ bi daal di wàcc daal di faatu muy laaj ndax day tënji wala du tënji waaw moom day tënji day tënji maanaam jéem am na doom laataa muy faatu day war a tënji waaye bu fekkan ni sëriñ bi dafa faatu muy doog am doom moom su booba moom tënji gi da koy daal di wàcc su ko defee foofu yi tamit ñu ngi ci ndokkeel mbokk yi bu baax a baax muy al imam Babacar Ndiaye Mexeel la Mbaye ak suñu jëwriñ Cheikh Mourtada Oustaz Touba Ñaxat wax dëgg yàlla liñ ci wax démb moom loolu rek mooy wax ja wàllu tënji daal loolu ñu ci leeral noonu dong la tënji demee jafe-jafe yooyu ci am itam maanaam ñun ñépp moom lañ ci am te liñ ci leeral doy na sëkk ab leeral xam naa la ma cey waxaat rek mooy man loolu moom na ma ko gisee rek mooy xeetu tënj bi nga xam ne sunu gox bi moom moom la ñuy tënjee maanaam ay wax ak yooyu moom du ko dindi xañ na bu ab sañ-sañ amoon moom ab yar dong mooy duma dong laa gis ne maanaam moo ko mën a dindi te loolu moom agguñu ci ndax la ikraha fi dini ndax loolu ñu mis wax noonu ci ni mu jafee dindee ak niñ ci dëgëre bopp maanaam seytaane ci xasa laxasu laxasaay boo xam ne bi daanaka neexatu la laqar ci ndax man li ma gis fi mu ne nii ci sunu gox bi mooy kiñ ne mooy boroom xam-xam bi ñuy dellu ci moom ci seen mbiri diine ca la leen neex boo koy xool la ñuy delloo ci moom waaye am na ñoo xam ne sax moom dañuy ber seen yenu bopp di def la ñuy def ba xañ na lu leen ca fekk fekk leen ca te wàllu tënji woowu rawatina saa bu amee ñaare yow boroom xam-xam yi boo ñëwee waxaleen la nga xam ne lii moom la ñu war a def ñoom dañu jëli màggat mu jigéen moo xam ne mi dem na ba am juróom-ñaar fukki at wala lu ko ëpp wala mu jege ko maanaam moo leen di digal ñoom ne neen nangam ak nangam ngeen war a def te lam leen di digal mooy yooyu gaa yi doon wax rek mooy lépp ay bidaa la yu bon yoo xam ne yu salte la yu suufe la yu ñuul kukku màgget googu di leen ko digal yow boroom xam-xam bi boo ñëwee wax leen li nga xam lii moom la ñu war a def dañuy lànk loolu nag man moom gox bi yépp ñiy tënj daanaka ci digalal màgget yu jigéen yooyu maanaam ci la ñuy wéy seen a tënj waaye benn boroom xamam bu ñëw wax leen ne leen bàyyi leen nangam ñu bàyyi ko man gisaguma ko waaye def leen nangam ñu def nangam loola man gisaguma ko kon loolu moom wax nañ ci ba tàyyi métitlu nañ ko ba tàyyi nu ne wax nañ ci waaye dara mënuñu ko kon day doon loo xam ne lii xam naa ne Seydina Omar doon def rek yor ab yaram boo xam ne bii lu ñu teree ku ca dër bopp maanaam ñu caaw la doomu moom laa gis ne moo mën a dindi loolu te loolu moom amulu cib sañ-sañ comme na ko yonante ba waxan sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi xam naa ñun mel na ni kon yaar bi moom tële nañ ci waaye sunu làmmiñ itam wax nañ ci liñ ci war a wax lott nañ ci kon dindi ba ca des mooy maanaam ñu jàpp suñu xol lii moom mënta am kon ñu delloo ko suñu borom la subhanahu wa taala yal nañu yàlla doole defal tawfiq bi jay sallallahu alayhi wa sallam